acca demi final baangi nonu dox digante papa car so so ak selu bu ndaw selu bu ndaw mom moy borom gembu lu wex li papa ngan so so gi sar mom moy borom gembu lu li mburu salif al zani ak mburu la diva kolinya gare gare jura je jam san ni je jame kolinya gare gare jura papa ngan so so यज्ञं सवियज्ञमे परिजा करकारजुरा तज सवियज्ञमे परिजा करकारजुरा यज्ञं सवियज्ञमे परिजा करकारजुरा यज्ञं सवियज्ञमे परिजा करकारजुरा यज्ञं सवियज्ञमे परिजा noonu Papa Ngane Sosokh Sele bu ndaw laa ilaaha illallah Papa Ngane Sosokh Sele bu ndaw attention tot tot tot oh Sosokh Attention, c'est le Bundao. Papa Ngal Soso. Papa Ngal Soso, t'as c'est le lai lai lai lai, Signal notre droit. Wassare du lutte Saliou Faye la sëriñ sa mbër bi dina la de